jërë ngeen jëf mbokk internetu Desport Media point com Desport TV ginnaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sant dañuy dikkate ak yéen li gën a fës yéene kàddu gi di bàyyeekoo fii si Wakaam monument de la renaissance Khadim Ndiaye moo leen koy jottali léegi léegi lay doon seen site leader Desport USA.

ñu koy dooree ci xibaar bu diis bu metti bu wàcc fële ci askanu Louga kii di wuyoo ci turu Astu moom nag mu ëmboon toll ci juróom-ñeenti weer moo ñàkk bakkanam fële ci hôpital ba Louga ñëpp nag jàpp ne ab sàggante la bi nga xamee ne waa hôpital ba def nañu ko te boobee ñu jiñ ko ñenn ñu dul sage-femme yi waaye nag ak lu ci mën a am ak lu mën a xew Modou moo nekkoon borom këram yéen a yàbbi nag ci nakar ak diis boobee wàcc seen kaw ginnaaw bi nga xamee ne suñu naataangoo sa ndakaar Buzz dem dalali ko foofee sa Louga la xew ak la am lépp moom expliqué na ko a leen di bàyyi rek ngeen teewlu ko seen site leader des prod USC. bi mu demee ba xamante ne ay euh, zéro heure jot na mu commencé waat di yëngu di commencé waat di gën a yëg métit ñu woowaat sage-femme bi bi mu ñëwee daf ko dowaate waat daan école fermé duggaat defal la leen mu nekk ak moom métit boobu nekk ci nekk ci ba quatre heures quatre heures bi muy jot ci la commencé nag di wax ni man maa ngi étouffé. dafa doon fàtt. ñu woo sage-femme bi mu ñëwaat bi mu ñëwaatee daf ko duwaatawaat leneen dem après nag comme instant boobu mi ngi wax mi ngi wax ni mi ngi yëg mettit man bougé tuma parce que dama doon def su ma toogee tuuti comme ma salle bi ay jigéen kese fa nekk man damay taxaw ci ci frontière bi di yër mais instant boobu dama toog wetam parfois mu ne naa ko yëkkati ma yëkkati ko mu toog su toogee tuuti commencé waat ma tëralaat ko ma xam ne 5 jot na. ci la commencé nag mel na luy mel na luy commencé fi parce que prévision bi ñu ko defaloon sax daf ko dindi sànni. daf doon yëg métit. yëg métit après commencé di yëngatu euh, je crois aide bi la ou bien sage bi la mais ñi nga xamante ni ñoo gàddoon keroog benn benn kenn kenn ci ñoom nee na ko soo bàyyiwul yi ngay def nii damay génnee sa jëkkër génnee sa yaay mu des ci man a yow. boobu yaa ngi foofu. voyage nga waxoo dara. non maa ngi toog parce que comme ñoom ñoo ko jaayee man dama jàpp ne xëy na lu ñu ci def mën nañ ko xam nañ ko ma toog man ko mais génn ma mënul nekk. mu ne ma mi ngi naan wax bàyyi ma dama bëgg a daanu man ko noonu ma la bàyyi man maa ko coincé ci lal bi pour bañ mu daanu boobu ay 5 heures du matin moo jot. mbokki internetu DS Prod Media point com DS Prod TV lii la leen andiloon xanaa di leen wax rek ngeen wéyandi du topp suñu programme bu leen fàtte nag si ñi nga xamee ne dootunoo abonné si chaîne bi ñu laal cloche bi si kaw day tax nag bépp xibaar bu yees te leer te wóor ngeen mën koo jot ci saa si xanaa di leen wax rek di leen jox ak di daje du yàgg dara si kanam incha allah jërë ngeen jëf kàddu gi nag fii lay bàyyeekoo si Wakaam Mamelles monument de la renaissance ki leen koy jottali seen rakk seen doom seen sët Xaadim Njaay si kàddu gi jërë ngeen jëf